champion champion ma ngi siyaar message euh, ay patriote lañ mais waaw loolu am na parce que avant tout ñu ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan comme ni ko waxee rek giri ñu koy félicité parce que sunu grand la mais aussi il na ménage aucun effort ci affaire bi mu ngi di woo ne ñu mbërkat ñun dañoo war def suñu contribution te loolu comme li ma ko waxee woon rek ku nekk mi ngi koy def fi nga dëkk mais dafa gën a rafet ko ñu dajaloo def ko ensemble te loolu dafay am solo ñu def ko ministre Matar ba ñu dégganteeg moom waxtaanteeg moom mu gunge ñu gunge bu rafet ñu ñëw indi suñu contribution jox ko ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et puis moom ñu ngi koy remercier bu baax a baax gis nañu coono bu mu daj ci affaire bi ñu ngi koy remercier di ñaan suñu borom mu jëlee fii Covid 19 bi lu mu gën a gaaw ba ku nekkoon na activité am message looy wax euh, comme message bi Cheikh Omar maanaam message bi lan la war a doon pour supporters yi. ak tamit ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. waaw parce que boo bëggee làmb war nga bëgg sport bu mu mënti doon mesure yi nga xam ne moom lañ joxe ñëpp war cee topp a topp parce que boo xoolee gis nga làmb amatul benn sport amatul boo xoolee feebar moo tax loolu dara amatul donc boo bëggee benn sport da nga koy pratiquer mesure de prévention yi ñu joxe dañ cee war a topp ñu ñëpp ñu wax suñu fans yi suñu am di jàmm yi ñu ñi taxaw fii yëpp indi nañ contribution rafet na mais le fait que ñu taxaw rek wax na. parce que boo gisee Gris Bordeaux taxaw nga gis Modou Lo taxaw nga gis Boy Niang taxaw yabee yabee Reug Reug ngi fi woon Tapha Tine taxaw loolu ak image la loolu wax la donc contribution bi après da cee dolleeku rek mais ñu war a ñëpp képp koo xam ne fans làmb nga war a ngay fans mbër war a foo nekk nga bàyyi xel bu baax li ñuy wax ñu raxas suñu jël euh, mesure distance bi ñu koy jël ñu ne toog leen seen kër couvre-feu bi 20 ñu respecté ko yaa ngi dégg parce que effort bi dafa nekk yéen ñi journalistes yi sax seen liggéey xaw na ralentir doo nga kon nag quoi nekk affaire de personnel c'est affaire boo xamante ni affaire de citoyen affaire de peuple sénégalais la ñu ñëpp du respecté ko mesure d'hygiène yi ñu joxe ñu topp ko di raxas suñu loxo ba mu set ñaan suñu borom mu jëlee ko fi nag lu mu gën a gaaw ba ku ci nekk mën a activité ñu ñu gën a ñaax nit ñi rek ñu ngi def euh, président mi ngi def ay don yoo xamante ni war na yegg ci citoyen yi bu nekk ñu ngi ñaan yoolu rek mu fexe mu yegg ci néew di doole yi daal parce que soxla nañ ko bu baax a baax comme couvre-feu vingt heures pour nga xëy suba teel dem liggéeyati li ñu fexe rek ñu ngi ñaan le président ñu teg ci ay loxo yoo xamante ne rek képp koo xamante néew doole nga di mën a jot li nga am daal incha allah merci beaucoup ok jërëjëf incha allah. mais bu mel mais lépp sant yàlla rek xam nga dëkk bi moom ñoo ko bokk waa ñun ñëpp tey bien vrai que sport la ñuy def ñeneen ñu ngi ci leneen mais li ñor li na këtt jën actuellement mooy coronavirus bi nga xam ne tey lembe na Sénégal daal. yaakaar naa mooy actualité tey ci dëkk bi ci monde bi yëpp di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jëlee ci diir bu gàtt hmm, loolu la ñëpp di ñaan te loolu mooy combat bi actuellement yaa waaw noonu la demee nag xam nga tey ay adversaire la ñun ñëpp tey bu ñu daje woon làmb ja tey day mité bien vrai que ñu ngi déggante téléphone ñun ñëpp ñu ngi waxtaan et mais actuellement lii mooy actualité tey mooy Covid 19 bi nga xam ne tey. Sénégal yëpp ñu ngi koy xeex monde bi yëpp loolu waral teewaay bi tey jii waaw. ci biir jiite ko ànd ak Gris Bordeaux moom loo koy wax en tant grand frère. xam nga grand la ci côté bu ne idole la royukaay la moom ci social lay dox ku ko xam-xam ko ci lool ba tax na tout le temps ñu ngi ci ginnaawam daal di ko pousser di ko jàppale ci lool. waa ci bismillah jumtuwaay bi kon mu ngoog. waa kii refan la jógee local la. mais di dundee couvre feu waa mais xam nga comme exemple euh, comme ni ko ñëpp di dundee ah. làqatu moytu noonu la demee. waa xam nga nag euh, mbëri maanaam seen entraînement la ci ëpp guddi la te xam nga guddi gi léegi dañ ko tëj xam nga. ñu bàyyi bu bët xaw set tey si gèrement bi ñu dem gérer li ñuy gérer quoi noonu la demee. mais Tapha bëri seen participation est-ce nga yaakaar xawul yeex. non xawul yeex et tout yi ñu ngi ñu ngi ci combat bi xëy na toogoon doon waxtaan la rek xëy na waxtaan nañu trouvé nañu solution. xam nga ñëw nañu daje nañu surtout looloo ci am solo rek mais xam nga ndimal moom du yeex quoi heure bu mu mën ñëwee rek. maa ngi lay bëggee maa ngi sant yàlla bu baax waaw teewaay bi li ko waral yow xam nga que ñëpp xam nañ ci Sénégal yi muy maanaam xeex coronavirus bi mooy suñu teewaay fii. mu mel ni kon mbër yi tey ay sénégalais lañu waaye lu jóg tamit dinañ ci dugal seen loxo. waaw ñun waaw ñun ay sénégalais lañ. waaw sénégalais lañ te yoon la ñun ñu dugal ci suñu loxo te lu ñu tamit ñu ngi ak suñuy kilifa tamit ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tegg fi nattu bi si kattan message bi lan lay doon message bi lan lay doon li ku ne na toog sa kër bàyyi ndaje bi waaw da am solo ndax tey ji ku ne na toog sa kër waaw wàññi nuyonte bi waaw di wax daal Sénégal yàlla fi jàmm yàgg jërë ngeen jëf